di julli ci yoon bu tedd bi sallallahu taala wa sallam di nuyu noo lislaam di leen wax taala wa barakatuh. imaam nee na moo leen di ziar bu baax rawatina ci guddi bu tedd bi ñu nekk ci guddi leen xadri nee na guddu la nga xam ne. guddi yërmande si yàlla. nee na nga xam ne fii guddi yi tey guddi lool guddi boo xam ne guddi yërmande la. ñëpp ñu baal la jàmm. ñun ñëpp kenn ku si nekk si ñun nañu baalante ak. ah ay ah. loxo. nee nañu saafante ay joxe ay loxo. saafante ak xol ak xol. nee nañu saafante joxe loxo ak xol. du loxo kese. nee na nekkul loxo kese ak xol ak xol. yal na yàlla sax xol yëpp. ñaan yàlla. nee ñu ñaan suñu borom. subhanahu wa taala. yàlla na mu lépp. yàlla na ñu yàlla na mu lépp. sarax ya. nee na sarax yi. ak naafile yi ak naafile yi. lépp yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala nangul ñu ko. jumaa ji ñi nga xam ne ñoo jëndoo ko fii ci jumaa ji ak saafi ak saafi ak kenn ku nekk ak ku nekk si dara si jumaa ji kenn ku si nekk kenn ñu xam bind nga dara si jumaa ji wala dégg wala nga dégg nga def nga joxe rek ku feebar ku feebar wala sa liggéey jumaa ji wala sa liggéey jumaa ji yëkkati sa alal daal yëkkati sa alal daal di joxe yàlla yàlla yàlla fay ko am nee na ñi xam ne amul yàlla may ñu am yàlla yàlla may ñu am jox ngir yàlla yàlla rek ak rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Euh, tey nag nee na guddi gi tey di guddi la ñu xam ne tey jii tey jii nag. dina ñëw tuuti. nee dina ñëw tuuti. ci waxtaan ci zakat waxtaan li xam ne mooy zakat fitri bi asak mudul koor nee lii nga xam na lii nga xam ne nag moom koor farata ci ñun nee na jul bu nekk na nga xam ne farata la ak jigéen nee ak ak ndaw nee na mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñaari ñaari ñaari at nee na ñaari at di deux ans bu mu dugg ci Madina nee na ba mu duggee ginnaaw bi dugg na ko dëkk bi noonu Madina yàlla wàcc ci moom ci biiru koor yàlla wàcc mu weeru koor ci biir weeru koor bi nee ci biir weeru koor bi nag yàlla wàcc ci moom asal nguuru koor yàlla wàcc asal nguuru koor moom nee parce que moom. nekk na ci makkatal mu karama. nekk na fi nga xam ne mooy dëkk bu sell boobu di makkatal mu karama. li nga xam ne mooy treize ans fukk ak ñett. jógee makkatal mu karama. nee na ginnaaw loolu mu jógee makkatal mu karama. mu dem Medina. mu nekk fa ñaari deux ans. ñaari atam ci Medina ñaari atam ci Medina nag. yàlla def ko wàcc mu ci wéeru koor. yàlla wàcce ci moom li nga xam ne mooy weeru koor bi ak moom lañ nekk. ci biir weeru koor bi. nee na ci biir weeru koor bi nag. yàlla wàcc moo asal mu lu koor. yàlla wàcce lii xam ne moom mooy asaka mbuurum koor. asaka mbuurum koor ah. mais lii nga xam ne nag moom mooy asaka mbuurum koor la. war na góor war na jigéen. nee na war na góor war na jigéen. ku am nee na ku am. ñu génne nee na nga génne ko. yow borom kër. yow loolu mi nga xam ne yaay kilifa borom kër gi di borom kër. nga génne sa bopp. nee na nga génneel sa bopp. nga génneel sa soxna. nga génneel sa soxna. nga génneel sa njaboot. nga génne ñi nga xam ne ñoom ñooy say njaboot. si njaboot sax. nee na say njaboot. fekkente pour ku am tey. nee na bu fekkente ak yàlla dimbali ba nga am tey. donc ci guddi ci guddi gi tey. suba mooy politique. Euh, nee na suba mooy korite. nee na war a génn ci moom askan. mooy li nga war a génn li nga xam ne askan moo góor. wala boo jëlee su ñoom. nee na wala boo jëlee su ñoom. ci bés politique. ci bés ba laata ñu dem julli ji. balaa balaa ngay fajar di jot. balaa fajar di jot. comme comme cinq heures comme cinq heures pile wala quatre heures. diggante sënk jàpp kataral nga am doom nga am doom boobu war na jël sa doom boobu boobu la nga xam ne mooy nag ne léegi na borom xam-xam ñoom wax génn bu ma ci bisu Korité. reewal génn ci asamuurum koor. da koy génn asamuurum que ah, fajar jot. nee fekkee ne fajar jot na nag. asamuurum koor wala koor moom dafay daal di wàcc. ñun nag. ñu am ñu am. ñu xam bu am. nga génnee. boo bu amul. wàcc na la. léegi nag nee nag. ñun ñun ñun. ñun ñun dund rek. ñun ñun dañuy dund rek. ñoo la war a génn. loolu ñi ngay dundal ñoom nga war a génneel. damaa ko def. mu ne ñu dëkk. arab yi. nee na arab yi. day dund ay tàndarma. dañuy dundee li nga xam ne mooy tàndarma yi. dugub ak wala dugub. kon nag tey ñun ñëpp. waaye ñun ñii suñu jamono tey jii ñun ñii. xaalis ñun xaalis la ñuy dundee di l'argent. soo ko defee. nee na boo ko defee ni ceeb. day jaay ceeb mu ne boo ko joxee ceeb day jaay ceeb bi. ndax bu si korite képp ku togg ceeb. nee na dañuy xam ne kenn du togg ceeb. mu génne xaalis mu génne xaalis. moo gën nee na moo gën. da nga yor xaalis. mu ne da ngaa yor xaalis. dem jënd si saaku ceeb. nga dem jënd saaku ceeb. mu génne as ko mu ko génne as ko mu ko. mu ne jaru ko. génne sa xaalis mu ne génne xaalis rek. léegi nag léegi nag. ñaari kilo. nee na ñaari kilo. ak lii ba ak lii ba. su fekkee ne kilo. nee na su fekkee ne kilo. am na ay trois cent. am na trois cent. wala trois cent cinquante. wala trois cent cinquante. wala quatre cent. wala quatre cent. nga bàyyi trois kilo trois cent. nga bàyyi kilo trois cent bi. nga bàyyi quatre cent bi. nga bàyyi quatre cent bi. génne trois cent cinquante. bi dee kilo li nga xam ne mooy trois cent cinquante. mu nekk ci diggante bi. mu nekk ci diggante bi. ñaari kilo. nee na ñaari kilo. ak lii ba ak lii ba. boo calculé. nee na bu fekkee ne calculé nga ko. boo defee mille francs mille francs. xam ne mooy mille francs mille francs di ñax téeméer. moo gën a baax nee na moo a baax. bopp bu nekk. nee na nit bu nekk bopp bu nekk. mille francs. nga indi mille francs. soo ko dajalee lépp na boo dajalee lépp nag. mun na jot ci benn nga joxoon benn minute benn benn miskin. jarul nga séddale. mooy jarul nga koy séddale. mooy nga jox kii bi franc jox kii bi franc. bu ne bu dee bu nekkee quinze mille la. wala mu génn si dix mille franc. wala mu génn dix mille franc. boo joxee ci benn nit. nga jox ko benn nit. moom mun na jënd ay ñaari ginaar. moom mun na ko jëndee ñaari ginaar. wala jënd ay dara. wala mu jënd dara. jënd dara. mu jënd dara. wala yore wala yore. jàppale ne l'islam loolu la jàppalante moom ku nekk ne nit ku nekk ko ku nekk mille franc génne ko mille franc nga génn nga génne ko balaa ngeen tuddee tuddee balaa ngeen julli julli julli koy tey jullikaay bi si balaa nga dem si jullikaay balaa ngeen balaa ngeen def foofu balaa nga dem foofu nga génne ko am na ay yeneen xam-xam sax am na ay borom xam-xam yi nga xam ne wax nañ suba nee na suba en tant que tey nekk ci guddi en tant que tey nekk nañ ci guddi laylatul xadr ñu commencé nga ko commencé ko génnee mun na commencé léegi ñu commencé sori su fekkee décolleté bi fekkee décolleté bi des na ñaari fan des na ñaari fan wala ñetti fan mun na commencé ñu ko commencé génnee ngeen joxe ngeen joxe ko bopp bu nekk nee na bopp bu nekk ñaar téeméeri mille francs soo ko amul nag nee na bu fekkee ne loo amoo ko nag nee na nga xam ne loolu wàcc na la ci biir waxtaan bi nee na ci biir ñu xam ne mooy waxtaan bi am na ku laaj am na ku laaj ci biir waxtaan bi góor nee na ki nga xam ne mooy góor. wala xale. wala xale. kon nag moom. waaye kon moom. am na liggéey. am na liggéey. kon nag est ce que papa moo war a génn si waas bu ko war a war a est ce que ay kilifa ñoo ko war a génne mu góor wala moom mooy góor wala génne ko mu góor. moom moo war a génn moom. nee na moom mu ko la mu ko la boobu am liggéey. ak kan am na liggéey. bu fekkee am na liggéey te mën ko. génn sa bopp mu dem génn sa bopp. jigéen nee na jigéen. sa borom kër. nee na sa borom kër. moom moo war a génn as moom moo la war a génne as ko sa fekkee nag yow am na. day fekk ku ji nga yow am nga nag. génn sa bopp wala génn sa bopp. wala da ngay yor liggéey. wala da ngay yor liggéey. sa borom kër amul. sa borom amul. mun nga génn sa bopp. yow mun nga génn sa bopp. nga génn sa njaboot yi nga génn sa njaboot yi. yóbbaale sa borom kër yóbbaale sa bi nga xam ne mooy sa borom kër. loolu moo gën a baax. mais loolu moo gën a baax. kon nag nee na kon nag ñuy def attention ñuy def li nga xam ne moom mooy attention def nag ñun suñu dund bi bii nga xam ne moom lañ nekk am na kër yu bëri am na kër yu bëri kon nag kon nag nit yi waxtaan nee na nit baax na su fekkente. nee na bu fekkente ni. borom kër. sa borom kër. moom moo yore moom moo war a yore lépp lu nekk si kër gi. moom moo war a yore lépp li nga xam ne moo nekk ci kër gi. dépasse. li nga xam ne mooy dépasse. courant ak courant. ndox ak ndox. lépp lépp borom kër borom kër moo ko gàgg. kon nag ñun nag léegi. waaye kon nag ñun nag. soxna si soxna si nga waxtaan ci moom ngay waxtaan ak moom yaa fay ci courant yaay yaay fay courant moom moo fay moom mooy fay ndox moo jënd gaz moo jënd gaz loolu war soo ko defee rek nee na boo ko defee rek rafet na lool rafet na lool parce que yaay Xadija ndax yaay Xadija moom moom day jël alalam lépp doon jël alalam ñëpp toog ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam góorgóorlu si loolu. góorgóorlu bu baax. bu leen forcé jigéen ñi. nee na yow yow bul kër bul forcé bul forcé ki nga xam ne moom mooy sa soxna. parce que yooyu da ngaa yor yére. da ngaa da ngaa yor yére. force ngay ngay force force dana koy courant. wala ngay jënd jënd gaal. wala ngay jënd gaal. mu ne loolu warul jigéen ji. def na nee na bu jigéen fekkee def na. def na lu baax. góorgóorlu si loolu nee na kenn ku si nekk si góorgóorlu bu baax. jigéen tamit. mais jigéen tamit. ñu war a góorgóorlu. jigéen tamit nga góorgóorlu bu baax a baax yow jigéen bi. ñu muur. nee na nga muur sa jël. nga sàmm sa bopp. nga sàmm sa bopp. lislaam am nañ. nee lislaam loolu la jàngalee. góor yi. nee ki ne mooy góor tamit. ñu munal jigéen ñi. da nga muñal bu baax a baax a baax a baax baax ki nga xam ne mooy jigéen ñi. yeewu suba. nee yow soxna. yeewu suba. nga yeewu suba. ngay bale. ngay bale. ngay lal. ngay lal lal ba mu rafet. ngay fóot ngay fóot. dem marché. nga dem marché. boor sa doom nga boor sa doom. ngay jooy ngay jooy. góor gi góor gi. boo soxlee dépassé. boo joxee dépassé. jeex loo pare ci doon lépp lépp moom la def. lépp lépp ci jigéen bi mooy def mooy bale mooy def lépp. ñoom kon kon boobaa yow mënuñu la soxna. waaw damay toog rek. waaye damay toog rek. doom yu muy yóbbu. doom yu muy yóbbu. yow da ngay yóbbu. yow da ngay yóbbu. at bi pare ko at bi pare ko. nangam nangam nangam di jàmbat rek góor gi. moo doon daal. góor yi nga ñëw bu baax a baax nga xam ne mooy sa sa sa sàmm. ñu sàmm sa njaboot. ba rawatina lool nga sàmm sa njaboot. yéen di sàmm awaari wa sallam. nee na lii nga xam ne mooy Muhammadu Rasulillahi sallallahu taala wa sallam. wax na ci benn xadis. wax na ci li nga xam ne mooy benn xadis. maktuban fi tawriid man balag lahu isnatay asara sanatan ñu def si benn tawreet. mu def bind na si benn tawreet. yéen sa boo amee sa doomu jigéen. boo amee kii nga xam ne mooy sa doomu jigéen. am na douze ans. mu am li nga xam ne douze ans ñu fukki at ak ñaar. nga jox ko borom kër. nga jox ko ki nga xam ne mooy borom kër. kenn sax noonu la tamit. mais yow loolu la jàngalee. boo joxul sa borom kër. boo ko joxee borom kër nag. boo amee ci bàkkaar def ay gaalo. boo amee bàkkaar nag moom dafi njaaloo. waa juróom. waa juróom. ñaari ñëpp ñaari ñëpp. ñoo ko sa bàkkaar. yéen a yéen a séddoo bàkkaar. léegi nag. mooy léegi nag. ñu gis ñu gis nag. ñu am 16 ans. ñu am li nga xam ne mooy 16 ans. am 20 ans am 20 ans. donc maa ngi jàng. maa ngi jàng. maa ngi def nangam maa ngi def nangam. te baax na soxla. te moom dafa am dafa am far. te moom dafa am li nga xam ne moom mooy far boo xam ne du ko. kon kon nag nanguwul. kon nanguwul. moom moo dugg si. nangu sax dugg si sëy tamit. waaw papam nee na. waaye papam nee na. moom dugg si sëy non non non mu dugg si sëy. il faut il faut mu jàpp il faut mu jàpp loolu loolu loolu loolu islam la. nee na kon ñoom góorgóorlu sàmm bu njaboot bu baax a baax. am na nee na am na kenn ku laaj. bor lii nga xam ne moom mooy bor am na ku amee bor am na ku amee bor moom nag mais moom nag dafa faatu dafa génn àdduna kon nag moom nan lay war a def mu ne moom moom nan la war a def damay saraxal wala kay saraxal wala wala ko déedéet mu ne ko déedéet moom am na mbokk moom am na mbokk boo jëre ci bor bi boo jëre ci bor bi ngay yóbbu ci bopp na nga dem yóbbu si ay mbokkam mu war a doon. ñoom ñoo ko war a doon. nga yóbbu si boppam. nga yóbbu si ay mbokkam ñoo ko war a doon. bor bi bor bi. nee na bor bi. bor bor bi moo am seet. bu fekk am lii nga xam ne moom mooy seet di témoin. yàlla subhanahu wa taala wax. nee na suñu borom subhanahu wa taala wax na ni. yaa ayyuha alladina amanu ida tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faqduhu وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا يعمل كاتب ان يكتب ما عمل الله kama qaala subhaanahu wa taala wax na. nee na suñu borom subhaanahu wa taala wax ni. soo ko bëggee dem. bu fekkente yéen bëgg ngeen ni leb. en tant que yéen yéen gëm yàlla. en tant que yéen da ngeen gëm yàlla. bind la mooy da ngeen bind mu am seede. bind mu ne nga bind. kooku kuy leb la. nee na kuy leb la. bind na nga bind. borom eh, alal bi. nee na alal borom alal bi. bind mu bind. mu am seede témoin. léegi nag am na ñu bëri. mooy léegi am na ñu bëree bëree day lem dañuy lem amul benn amul seede amul teewe amul ku ko fekkee loolu moo tax loolu moo tax benn saxaaba génn ci àdduna benn saxaaba daal di muslim bu génn àdduna ñu tëral ko ñu tëral ko yéen bi sallallahu yéen bi sallallahu alayhi wa sallam loxo alta sëy est ce que moom bàyyi dara mu ne moom est ce que moom muy tëdd fii ndax moom bàyyi dara déedéet moom bàyyiwul dara de waxaat ay baax moom am na bor. waaw moom ndax mu am na bor. wala baax ah kay moom mi tëdd fii de moom am na bor. yenn salaasala kàpp ñaata la. loolu du xaral ñaata la. salaasala dinaar ñetti ñetti dinaar. mu ne ko ñetti dinaar. yàlla ci ñetti. yàlla ci foofu mu ne. sàbbu ala saahibu. julli seen néew. yàlla ne foofu jullee leen seen néew. man du ma jullee moom. moom du ma jullee néew bi nga xam ne dafa am bor. benn saxaabu ci benn saxaabu ci mbooloo mu jur xale bi abu atat abu atat yaa rasulallahi salli alayhi wa alihi mu ne ko mu ne mu ne ko yàlla julli leen ko julli leen ko maa ngi dal man nii ma may gàtt bor bi day def ñun mu ne léegi ñun nag day defal fii da ngay def fii lef fee lef fële lef feneen lef feneen jour bu ñëw ci def suñu bu ngay ñëw di def da am ay wax yu wax wax bu neex a neex a allah wax dëgg yàlla sama amee dina la fay. fu mu amee dina la fay. da ngay am rek. da am rek. beneen beneen côté. bàyyi na nga nga nga bañ a fay sa bor. te da ngay leb. te da ngay leb kenn di yëgul. nee nit. xam nga lépp. xam nga ñaar wala na. ñaar wala ñett la yor bi saa su wax na foofu moom dagal na fa. amul a toogee suba si àll. amoo loolu toogee suba ne nga def lenn pour nga sa njaboot bi lekk suuf. wala côté. wala côté. amul yéen yéen. amoo yéen bu rafet. ngay def lépp. nga def lépp waaw. boo amee nag nga def fay. kon nag lépp. waaye kon nag lépp. jënd oto nga jënd oto. lépp lépp. jënd ay yeneen teer. jënd ay teere lépp. loolu dafa xaraam. nee loolu dafa xaraam. nee na kenn ku si nekk si lu nga góorgóorlu bu baax. kii dafa laaj. nee na am na keneen mu laaj benn laaj. dafa war a génne asaka. dafa war a génne lii nga xam ne moom mooy asaka. ci place ci place am. kon nag. kon nag. vraiment lu mu war a génne. mais jamono yi nga xam ne nag moom la ko war a génnee rek dafa am bool yu diis. dafa am ay bool yu diis diis ci kaw. léegi nag moom. mu ne waa léegi nag moom. est-ce que war na génne wala war na génne war warul génne asaka. déedéet mu ne ko déedéet. asaka wàcc. nee na nga xam ne asaka boobaa day wàcc si yow. yàlla subhaanahu wa taala wax ne. nee na suñu borom subhaanahu wa taala wax ne si déedéet. innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal 'aamiliina 'alayhaa wal muwallafati quluubuhum fi d-diraari wal ghaarimin bu la génne asaka. mais loolu dina daal ne bu ñu génne asaka. ngeen jox ko miskin. ngeen jox nga jox ko ko am bor. léegi ku am bor. nee na ku am bor. bu la génne asaka. bu la génne asaka. ngeen jox ko. ngeen jox ko fay bor mu fay bor. kon nag. nee na kon nag. da ngay yor bor. mu kon da ngay yor bor yow. xaalis nga tax ci loolu nga xam na si yow. comprendre. nee na ndax dégg nañ ko bu baax a baax. keneen laaj. am na keneen ku laaj benn laaj. moom dégg na ci julli ci mbooloo. moom dafa dégg lii nga xam ne mooy julli mbooloo comme ni ñuy def nii. tiyaaba ndax tiyaaba la. léegi moom kese. nee na mu fekkente moom kese moo. julli moom kese. gis mbooloo. mu gis mbooloo. est-ce que mun na dem julliwaat ci mbooloo. ah kay juróom am na kay. kon nag waaye nag. ah ah nekkul lii nga xam ne mooy timis de. boo jullee timis yow. boo jullee timis. soo ko gisee booloo. boo gisee booloo. boo julliwaat nee na bu julliwaat. soo ko jullee gee. nee na bu fekkee ne julli nga gee. julli gee pare. nga julli gee pare. def safa ak li nga def li nga xam ne mooy safa lu tër. nga gis benn booloo. nga gis benn booloo. boo julliwaat boo julliwaat. boo julliwaat boo julliwaat. tiis nee na tiis ak gee ak gee su fekkente ne fekkente ne tiis tisbaar wala takkusaan soo ko jullee ba pare boo jullee ba noppi gis mbooloo nga gis mbooloo nga julliwaat nga julliwaat nga am tiyaaba pour nga am li nga xam ne mooy tiyaaba parce que coopérative nee na suñu dégg nañ moom wax bu baax. tiis nag nee na li nga xam ne ak gee ak gee boo julliwaat nee na boo jullee bul julliwaat nga waroo. gee nag soo jëlee julli nga ba pare def sa safa ak witte. nee na gee bu fekkee julli nga ba def sa safa ak witte nee na bu julliwaat keneen kii dafa laajoon. nee na keneen kii dafa laajoon. ndax jigéen. ndax jigéen mun na jiite. ndax jigéen ndax jigéen ndax jigéen ndax mën na jiite. jigéen jigéen mënul jiite jigéen jigéen mënul jiite. mënul jiite seen jigéen. mënul jiite seen jigéen. loolu wérul. nee na loolu wérul. parce que te ak mboor masam yi yëpp. nee na mbooloo masam yëpp. tënku la nee na tënku la. jigéen jigéen jiite jigéen bu wér. jigéen jiite jigéen bu wér. nekkul lu wér. daa daa nekkul ah. nee na nekkul lu wér. su fekkee sax. nee na bu fekkente sax. jigéen jigéen mun na jiite si jigéen ñi. mun na jiite si jigéen ñi. kon nag moom bu nekk ci kon moom bu am moom bu nekk ci kanam. ñëpp dafa si benn sax ñëpp dañuy tolloo dafa benn benn benn ram rek. moom moo nekk moom moo nekk si digg. moom mu nekk ci digg bi ñu tolloo. moo nekkul loolu. bu nekkul loolu. moom kese mu nekk ci ginnaaw kese bu jur ñii nekk ci ginnaaw. loolu loolu. nee na loolu loolu faa. keneen bi dafa laajoon. nee na keneen bi dafa laajoon. julli néew. julli li nga xam ne moom mooy néew bu faatu. moomu amul jàpp. moomu ngay def nag amul woon li nga xam ne mooy jàpp. moo amul jàpp. nee na ki nga xam ne amoo jàpp. ndax moo mën a jullee néew. ndax moo mën a jullee néew wala mën a jullee néew. fekkee ci masab imam Maalik. nee na bu fekkee ne masab imam Maalik la. ku amul jàpp. nee na ku amul jàpp. wala jullee néew. wala jullee néew. comme mbooloo masab yi yëpp. nee na mbooloo masab yëpp nag. ñoom d' accord nag. ñoom d' accord nag. mun na jullee néew. jullee néew parce que julli néew ndax jullee néew ay ñaan kese nee na ay ñaan moo fa nekk si ñaan yërmande ñaan kese nee na ñaan moo fa nekk comme toog rek ne comme toog rek amul jàpp rek amul jàpp nee na kuy xam ne amoo sunna sunna léer eh, na ci sunna. léer na ci sunna. mun na julli. mun na julli nii waaw mu jàpp. waaw mu jàpp. Ahmad bun Hanbal. nee na kii xam ne Ahmad bun Hanbal. Imam Saafi. Imam Saafi. Abu Hanifa. Abu Hanifa ñëpp d'accord na. ñoom ñëpp d'accord. waaw amul jàpp. waaw amul jàpp mun na julli nii. mun na julli nii parce que julli néew. ndax julli néew. amul sudu. nee na amul sudu. amul rubo amul rubo taxawaayam. nee na taxaw ñaan ñaan lu mën. yàlla na yàlla may bu rafet. yàlla na yàlla may bu rafet. Eh. ba dugg ci bu la. nee na xam nga juróomi biir la. juróomi ponk la nee na juróomi ponk la. xam ne mooy ponk bu njëkk bi. mooy nga nga taxawaay nee na nga taxawaay. ñaar nga ñaan. Euh, ah yéene. taxawaay. ñaan ñaan. Euh, sidra nga sëlmu ak kabar ak kabar yéene yéene kabar kabar taxawaay ñaan ñaan sidra ak sëlmal bu njëkk nee na li xam ne mooy bu njëkk bi nag allahu akbar allahu akbar mooy premier mooy mooy bu njëkk premier ngay tey faati nga tey faati ma set bu ma set allahu akbar allahu akbar deuxième bi deuxième bi salaatu ala nabi nga jàng salaatu ala nabi allahu akbar allahu akbar ñetteel bi ñetteel bi nga ñaanal nga ñaanal ko suñu borom subhanahu wa taala ko ku tëdd ku tëdd bi nga ñaanal nga ñaanal allahu akbar allahu akbar ñetteel bi ñetteel bi nga ñaanal ay mbooloo nga ñaanal mbooloo ko xam ñu gën ak na ñëpp ñëpp nga ñaanal nga ñaanal nga ñaanal ku bi taxaw ci nga ñaanal ci ginnaaw ku tamit loolu mooy tuddee loolu mooy tuddee ñëw Fatiha jàng Fatiha mu def mu def

waaw. waaw incha allah ci ndigal imaam Cheikh Abdoulaye Sall yi tudd leetu xarit ab fàtt na bi. nee na bu ñu toppee. ñu julli saa bi tas def ay ñaan. nee na incha rabbi. ñun ñi nga xam ne dëkkuñu Dakar. ñun ñi nga xam ne dëkkuñu ñu ko liggéeyee lañ ko war a joxe wala mën nañ ko yóbbal ci a baax. ñoom na si. waaw ñu ngi fi def ko ko mën gaa. waaw ñu ngi si sa bopp yàlla ñu ngi ko ko doon wóoru a sa bopp ci. njaboot yëpp. bu ko kenn nag bu fajee sa mbir mi am na foo koy gëstu nga yëg ko waaw su ma ne am na mbir am na. comprendre nga comprendre nga incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah. di ma amee naafale bi tey dañuy julli. dañuy julli fukk ak ñaar rakka. fukk ak fukk ak ñaar rakka. rakka bu nekk. nee na rakka bu nekk. naan sal naa ko. nga jàng ci naan sal naa ko fi léeg-léeg xam ne ba saa di jeex. fukki yoon nga jàng ko fukki yoon. naan sal naa ko fi léeg-léeg. naan sal naa ko fi léeg-léeg xam ne fukki yoon. fukki yoon. bu mu mënul nag. nee na boo ko mënul. mu nga remplacé. nga remplacé ko. pour wàllu wàllu. pour wàllu wàllu. soo ko mënee naan sal naa ko. nee na bu fekkee ne mën innaa anzalnaahu fi laylatil qadri nee rek moo gën a baax nag nee na tey jii bu dul laylatil qadri innaa anzalnaahu fi laylatil qadri nee na fekk di moo innaa anzalnaahu fi laylatil qadri nga jàmm lu wallaahu nee na ku munul nga jàmm lu wallaahu nee na bu fekkee ne julli nga ràkk yi nag borom téere bi nee na nee na borom téere bi nee na. yàlla dina mën a tiyaaba yàlla dina dina tiyaaba. lu mu mooy tiyaaba si yéen yàlla Moussa. lu mu mooy tiyaaba yàlla yàlla saa salaam. yéen yàlla Moussa alayhi salaam. yoroon yàlla Moussa alayhi salaam. ak Haarun alayhi salaam. ak Haarun. ak Haarun alayhi salaam. alayhi salaam. boo jógee ëllëg. nee na boo jógee ëllëg. yowmal qiyaam yowmal qiyaam da nga ànd amiin nee na xam ngeen amiin. soo ko déggee ci ñaan. boo leen déggee ñaan. ngeen wax amiin ngeen wax amiin. amiin nee na parce que amiin. ñaari aala. ñaari aala. ak miim. amiin ak yaay ak yaar ak nuun. aabu dëkk bi nee na aabu dëkk bi. Ibrahima. aabu deuxième bi. aabu ñaareel bi. Ismaïla. Ismaïla. miim bi nee na miim bi. yàlla yàlla Musa. yàlla yàlla Musa. yaay bi yaay bi. Yunus. Yunus. nobbi nobbi no yo képp ko wax amin nee na képp ku ne amin am tiyaab ku ne am tiyaab ko salaamaaleykum